mën def lool te ànd ak qualité ba tax bu leen kenn naxati dama ni lu jekk yanj te ànd ak qualité feeñ dong nga ko mën a amee mu ji KBSB ak GTI lii di ay bool yu sell te rafet kaar ay plateau yakkukaay yu taaru ay mbana ak ay booli dama ni yegsil ci biir ay plat en yu nice dëgër këcc dis lool te ànd ak design ay thermos kafe dale ko ci 1 litre ba ci 16 liitre ay plateau mélamine ay kudu ay torchon ay nappe de table ba si ay fourchette dolli si ay service ndekki ba ci lépp luy électroménager waaye itam am nañu ay glacières yu mag ak yu ndaw ak yu verre a eau ak yu boisson yépp ngi leen di xaar ci biir yéen ñi nga xamante ni yéene berndeel di jaar ci yoon yi fàttewuñu leen mukk ndaxti am nañu ay barquettes ay tasses à jeter ay gobelets à jus ay papier film ay papier aluminium ba si mouchoir ah nag dafay ànd ak cet te loolu nag GTI moo si mën ba tax na indi na leen ay yu loxo ay paan ay siwo ay poubelle ay yu ndox ay satala njàpp yu mucc ayib te amu ci lenn lu leen di lor ci seen wér yaram ndax ca qualité am nañu chaise yu mag pour mag yu relax ak chaise yu ndaw pour xale yi ak yu mën a dalal gan yi ma wax yépp nag ku ci bëgg am gaawal gaaw dem ci magasin KBSB yi ma leen di limal KBSB Touba Mbédoum 28 ca marché ocase tournalu oto Touba Mbàkke yi ginnaaw kër Serigne Mahmadane Mbàkke di nga fa fekk Cheikhouna Diop ci numéro de téléphone bi 76 644 16 24 am na itam ci wetu Orabank bi kër Serigne Modou loo Ngaabu dinga fa fekk Cheikh Abdou ci numéro de téléphone bi 77 373 31 99 wala nga dem ca garage bu ndaw jàkkaarlook garaaj Guédé di nga fa fekk Jili borom Bagdad ci numéro de téléphone bi 76 644 16 25 bu fekkente ni yaa ngi Jurbel demal ca marché Ndoumbé Diop jàkkaarloog quincaillerie Serigne Baba Thiam di nga fa fekk Cheikhouna Diop ci téléphone bi 76 boo àndee Kër Bamba sunu boutique groupe Touba Industrie kenn du la mën ci bernde ne ak Cheikh Mbacké Bara Dolly ne ndax moom moo fi toogal PDS ne kii toog di Cheikh Abdou moom it moo fi toogal bokk gis-gis waaye tey loolu yëpp ne dafa seey ne ndax tey coalition bi rek moo jiitu ne Cheikh Bass maa ngi lay nuyu ci turu coalition bi ne di la ndokkeel ci bis bu màgg bii ñu jublu ne ndax bis la boo xam ne nee ñun ñi di murit nee li ñu sëriñ Touba liggéeyal nee xamuñu ko lépp nee damay faral di wax ne nee tuddoo nee dañ ko wone nee dañ ko war a wone murit du lu ñuy tuddoo de dañ ko war a wone nee ci suñu comportement de tous les jours war a fexe ba gis. ne képp koo xam da ngay woote ni murit nga da ngaa war a fexe ba ku la gis. ak yëngu. ne ak kilo looy yëngatu. wane ci njub. ne nga wane ci njub. wane ci fula. ne wane ci fula. wane ci fayda. ne ci fayda. la gis. ne ba ku la gis. ne. ne jàll. waaye moom dafa préféré. ne wane non violence. ne. am ndam. ne. fekk ñu fi. ne. bàyyi ñu fi nee ñu fi nee ñun suñu bopp loolu nag war a sas nee loolu daf ñu woon fa av ay homme politique nee ñun ñi nga xam dañoo nekk ay homme politique nee képp kuñ ci dénk alalu réew mi war nga fexe ba sàmm nee war ngaa fexe ba sàmm ko war nga fexe ba liggéey liñ la sant war ngaa fexe ba liggéey liñ la sant nee ba boo ëllëgee nee boo tëddee nee nga mën a nelaw nee nga la conscience tranquille euh, nee ndax maam Cheikh Ahmad Bamba Serigne Touba nee réew mi nee dafa bëgg ñëpp naataange nee ñëpp ci nee muy murid nee muy jullit nee muy chrétien ah, nee kon Cheikh Bass nee lu toll noonu ah, nee bu tegoo ci sa loxo nee nga yor organisation màggal gi yëpp. nee di la gërëm yi ñun murit yëpp. nee te loo ci def rek. nee ñun ñëpp nga ko defal. nee sa maam nga ko defal. waaye bokki taaliba yëpp it nga ko defal. Ah, nee ndax sa maam. maam Cheikh Ahmad Bamba dafa fonk taaliba yi. nee ah, te lii. nee lii nga xam ni moom la sëriñ bi woote jàmm la ci Sénégal de. ne màggal gii nga xam moom la ñuy def at bu jot ne jàmm Sénégal la de ne xam ma xam nañ ko xaw ma xamuñu ko euh, ne li ñuy wax nag ne olof danay faral di wax ne ne tombe moo waral ay gaaf ne man ba sëriñ bi wootee ñaani fii ci Touba. ne man kat damaa jël sama carnet di noté. nee fa tabaarakallaaw ñëpp gis nañu nawet bi ni mu demee. nee fa tabaarakallaaw ma ndox mi sax dafa xaw a ëpp. waaye feebar bi ah nee na borom bi subhaanahu wa taala mi ngi ciy defal jàmm de. nee tey bi ñu yeewoo. nee 0,87 ne loolu nag ne dama am sama benn doom ne bi ñu ñëwee Touba ci ñaan gi ne ba dellu ne chaque jour ne ne maak moom ku ci njëkk a yeewu ne dafay seet ne fan la Covid 19 bi toll ne kenn ku ci nekk maak moom ñuy note ne ba benn bés ne ñuy añ mu ma wax dëgg yàlla ne boobu ba tey ne mbir maa ngi wàcc ne kon kay jërëjëf Serigne Touba ne nee ñun nag yàlla daf ñu jox arme nee ñun jullit nee daf ñu yàlla daf ñu jox arme nee mooy ñaan nee wéeru ci alxuraan ne ñun nag ñu boole ci xasaayid Maam Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul nee loolu it lépp lu ñuy am rek dañ ah, kon boog ne seriñ bi ne maa ngi lay ñaanal ne li nga nekkee ne Mbàkke xam naa ni coono bu rëy la xam naa ni lu mat weer ngi nii wala lu ko ëpp ne yaa ngi ci préparation màggal gi ne kon Mbàkke ñu ngi lay ñaanal ne yal na yàlla dolli la kartan ne yal na yàlla dolli la wér ne te loo def rek ne ci yoonu képp nga ko def nee li nu taxawal nag nee sëriñ bi jàmm rek lañ ciy wut nee nee xalaat boobu nag nee ñu am ko ba ànd nee Mbàkke ñu ciy sàkku nee ci bis bu tedd bi ñu jëm nee nga ñaanal ñu ci nee ñu am ci ndam nee te Sénégal am jàmm nee ndax politique nee mën nga koo def nee ci jàmm rek nee te doo wax kenn lu ñaaw nee te doo xas kenn nee doo waxil kenn lu ñaaw nee te du tee nag nee ñi ngay waxal nee ñoom ñoo la gën a yeewu nee kon loolu jarul loolu yëpp nee su loolu weesoo nee suñu borom nee bu lay jox nee jarul nga ca di wax ji lu ca nga ci wax lu ñaaw nee moom yàlla bu la waree jox. nee nu mu mën a demee nee dana la jox nee moo tax rafetalal ne ba yëf yi tegu ci say loxo ne man day noonu laay doxale nee te xam naa ne ñii ma àndali noonu laay doxale ne kon kay sëriñ bi senegal ñun ñëpp ko bokk nee xanaa rek ñoo am a wutante ay xalaat rek ne kon boog nee loolu waruñoo taxale nee war nañoo fexe ba nga xam ne nee Sénégal nee lépp lu am ne dañ koy waxtaane ne ba jàmm rek dugg ne ta mu nekk njëriñal réew mi waaye xëccoo bu metti bi ak yenn yu ñaaw yi ne président Ablaye Wade day ne maa ngi lay jox nuyoom sax ne lim ma wax ne su ngeen demee ne na ngeen góorgóorlu nee fu ngeen war a dem ne ngeen dem fa nee waxtaan ak nit ñi waaye waxuma leen waxuma leen lenn loo xam ne nee dafay jublu ci ay nee lu dul ci jàmm nee loolu rek la ma wax ni ma nag nee yow day Papa Diop am nga ci rôle nee soo demee rôle boobu na ko joué nee na nga na ngeen fexe nee ba élection yii ngeen taxaw ci fulla ak fayda nee te bu leen ci def dara lu ñaaw nee te incha allahu loolu lañu fas yéene nee président Abdoulaye Wade nag nee sa xarit la nee yàgg ngeen nee wax dëgg yàlla nee Mbàkke nga yàgg koo jàppale yi tamit nee suñu borom subhaanahu wa taala moom yàlla mooy def lu ko neex nee lu dul jeex nee yàlla bind ko nee su la joxee nguur nee ku bu koy jël nee moom yàlla du la tàggu mais eh, moo tax nekkee ci mais eh, ndax lépp da nee te fàttali rek ne ak nettali nee eh, moo fay des kon maa ngi lay sant bu baax a baax nee ci turu délégation bi ma àndal yëpp nee ñun nag nee dañu ñoo xam ne nee bu ñu ñëpp déggee sax ne ñu ni coalition ne te amaguñu tur ne boobu ba tey ne dana leen jaaxal ne euh, waaye ñun ñi nga xam ñoo composé coalition bi ne dañoo yàgg ci politique ne am nañu nan lañuy composé fekk kon élection présidentielle ne su boobaa kenn lañuy jàppale bu dee élection législative c'est au plan daal waaye élection locale ne coalition ne nit ñi dañ koy wax rek ne yombul de ne ndax kat defar liste ya moo tax ne moo tax ne fa nga war a tàmbalee ne fa nga tàmbalee ne waaye tëb rek indi tur ne woo télévision ñu taxaw ne loolu yomb na waaye defar liste ya ne foofu nag fa la jafe-jafe ba nekk nee loo tax ñu xaw a prudent di la gërëm bu baax ci turu ñi ma àndal nee jërëjëf maam Mor maa ngi jéggalu dafa fekk ni dafa am ñaar bokk ci njabootu maam Cheikh Ahmad bokk ci délégation bi mu sëñ Abdou Khoudous mii toog ak sëñ Assane Mbacke mu sëñ Atix salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamani hala maahin maal absa wa safar salaatu allazi fi kulli sayrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar